Merci, merci. Ah. <laughs> Comme gars yi balaa ngeen comme gars yi seen balaa muy laal laal bi la ñuy wax. ah c'est ay waay ay waay sa table xanaa da laa yomb.